seen art culinaire tey nee nañu ceebu jën def nañ ko patrimoine universel mais ñu identifier ko au Sénégal naka la ñuy feccee naka la ñuy tëggee loolu mooy le premier identifiant d'un peuple te ci biir peuple boo gis day am ay spécificité ndax ni ñuy en Casamance bokkul ak ni ñuy feccee Fuuta boo demee Fuuta riit yi lañ fay def boo demee Casamance bëgërëb lañ fay def donc culture dafa am solo ci peuple ba tax ñun dañoo fonk culture bi ñu toogee dégg ngeen yaa une vingtaine de jours wala un mois li nga xam ne mooy la copie privée artistes yi yàgg koo jooy te amuñu ko il y a à peu près vingt cinq jours jàllale nañu en conseil des ministres la décret bi nga xam ne depuis des années ou des décennies artistes yaa ngi doon daw ci gannaaw loolu dégg ngeen ñu ne Pastef fay na les droits d'auteur li muy utiliser ci campagne bi ci ay son ñun rek pour le moment laa déggagum ci ay coalition wala ay parti yu ko fay kon ñun culture xam nañu lan mooy valeur am te bëgg nañu nitu culture di dundee culture moo tax ci pôle ndakaaru damay commencer par le hub culturel Dakar est déjà une attraction culturelle dañu bëgg mu doon un grand hub culturel ba commencer ko ci la ñu bëgg ci Dakar mooy mu doon une la capitale culturelle de l'Afrique tey gis ngeen depuis quelques jours lancé nañu biennale bi biennale bi yàgg na fi biennale des arts des lettres et cetera mais dañu bëgg biennale bi jël une dimension dix fois plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui mu doon une source de rayonnement de notre pays à travers le monde entier mais dañu bëgg aussi benn écosystème bu dynamique boo xam ne lépp luy industrie culturelle à travers toute l'Afrique ñu mun a am centralisation ici au Sénégal ou à défaut mu doon un des foyers forts de la culture ñu ngi koy jaarale ci cinéma bi ci la production de série ñëpp xam nañ ni sénégalais yi am nañu capacité ci production ay série ba léegi série yi ñu ngi koy trans ñu ngi koy tra transcrire ci anglais ci français chaîne internationale yi sax di ko jàllale mi ngi jaar aussi ci les arts di jaar aussi ci lépp loo xam ne dafa jëm ci production musicale loolu mooy premier élément bi nga xam ne bëgg nañu Dakar ni ko Senghor bëggee woon ba tax mu organiser woon la festival des arts nègres noonu lañu ñu bëggee dundalaat art ak culture ak léglu jëm ci noonu ba Sénégal doon ci benn royukaay ci Afrique mu war a yomb nag parce que Sénégal gis nga art dafay ànd ak stabilité ak paix foo xam ne ay balang fay tàkk nit ñaa ngi fay dóor jaasi nit ñi dinañ tal leneen lu dul art lu dul fecc lu Euh, euh, euh, peinture wa ak yeneen ak yeneen mais Sénégal am na stabilité démocratique nu mu métti métti on parvient à faire des alternances mu jaar par les urnes kenn musul dégg coup d'état au Sénégal kon tey li ñeneen ñàkk te ñu ñaanal leen ñu am ko ndax ñun panafricain la ñu jàmm la ñu bëgg ci continent bi mais en attendant loolu di am nous avons utilisé lii nga xam ne pour capter tout ça ñaareel bi mooy on veut que Dakar soit un du savoir de la science de la technologie de la production scientifique loolu tey am nañu un petit avantage yéen a ngi gis ni ay xale dinañ jóge Congo jóge ba Cameroun jóge euh, yeneen réew yi di ñëw jàng si fii Sénégal parce que am nañu ay institut de formation yoo xam ne qualité bi mu am pour le moment eggagul qualité bi ñu bëgg comme les pays développés mais raw na lu bëri ci pays yi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk langue bi ñuy gën a utiliser muy la langue française ñu bëgg donc ce hub du savoir par la promotion décole de renommée ñu gën koo travailler bëgg nañu mu doon un hub des métiers du savoir également par le conseil et l'ingénierie Sénégal am nañu ay borom xam-xam réew yu bëri bu ñu buggee def ay consultation ay Sénégal lañu jël si suñu cabinet d'expertise yi expertise comptable expertise financière expertise fiscale lépp am na fi amuñu dara loo xam ne war nañ koo nawee yeneen réew yi ñu bëri études yi ñu bëgg a def dañuy ñëw jël si les compétences sénégalaises loolu nag war waruñu nelaw ba avantage boobu ñu perte ko pour cela il faut que tous ces métiers de conseil d'ingénierie d'ingénierie les métiers judiciaires les métiers de la finance de la comptabilité les métiers qui tournent autour des hydrocarbures ndax am nañu tey pétrole am nañu gaz ak lépp lu jëm ci mini on doit produire des spécialistes dans tous ces métiers les meilleurs experts de l'Afrique mu jëriñ ñu d'abord suñu réew mais ñu mën koo exporter comme savoir-faire parce que gis ngeen le savoir immatériel mooy xam-xam boo xam ne du loo mën a téye nous sommes dans cette économie là yéen a ngi dégg ñu naan l'économie du numérique tey boo jëlee li ñuy tuddee les majors les majors en matière d'hydrocarbures da ngeen di dégg ñu ne BP da ngeen dégg ñu ne Total da ngeen dégg ñu ne Shell ainsi de suite gis ngeen ñooñu ñëpp boo leen dajale dajale seen chiffre d'affaires mennum Google moo leen ëpp su chiffre d'affaires xam-xamu ëllëg mooy xam-xam bi nga xam ne wala économie ëllëg mooy économie bi nga xam ne ci xam-xam lay jóge ci xel lay màcc soo déggee ñu ne les GAFAM Google Facebook Amazon et cetera yooyu yëpp c'est le savoir immatériel du ñëw jël ay pelle di gas donte loolu am na njëriñ ci réew mi du petrole du mine waaye loolu yëpp ci xel la jóge ay bouton ngay toog di ko cliquer mu jur tout de suite ay milliards Chine mi rattrapé retard am ba tey c'est le seul pays boo xam ne maîtriser na la technologie du 5G tubaab bi di bëgg a rey seen bopp loolu la anglais di wax leapfrogging mooy da ngay ñëw amoon di liggéey di ko rattraper ba ñëw ci benn secteur nga commencé di dépasser ñi nga xam ne ñoo téye woon réew mi àdduna bi loolu la bëgg ci Sénégal nañu gëm suñu bopp dañu bëgg a former dans ces métiers extrêmement importants de la matière grise te loolu mi ngi jaar ci Sénégal am nañu déjà ay doomu Sénégal yoo xam ne ña nga États-Unis ña nga Chine ña nga Europe ci secteur névralgique yooyu ñoom ñoom ay ay ay référence lañ fa ñu leen ci jox ay prix on va organiser le retour au bercail de ces matières grises ñu ñëw fii Sénégal ànd ak jeunes yi encadré leen ba ñu mun a am li ñu bëgg ci nekk les pionniers en Afrique dans un premier temps mais dans les décennies à venir nekk parmi les premiers ci secteur yooyu dakaar moo war a nekk le centre le foyer de cette économie immatérielle dakaar war na nekk un hub touristique nekk na ko ba noppi mais dañ ko bëgg a renforcer peut-être am na ay zones du Sénégal qui ont une capacité plus importante en matière touristique mais dakaar a été la capitale de l'AOF e Gorée mi ngi fii à côté ñu war a continuer di def promotion parce que c'est l'histoire du peuple noir des périodes les plus délicates et les plus difficiles de ce peuple noir moo tax le devoir mémoriel bu leen kenn nax quand Ousmane Sonko parle de devoir mémoriel wax ko parce que de dafa contre France wala keneen waaye il faut que suñuy doom xam ce qui s'est passé parce qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui tôt ou tard va subir à nouveau la domination li tax ma ne tey fii biir Ndakaaru waratuñu am tali bu tudd général de Gaulle wala maréchal Foch wala